Ceerno nee na gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ngërëmu suñu borom bi subhaanahu wa taala yal yàlla def ci suñu sëriñ mawlana cheikhana ahmada tijaani anhu ak mboolem góoru yàlla yi ak mboolem ñu baax ñi نون يت لا نيو نياني غيرم سونو بروم بي سبحانه وتعالى نا نيك سي سونو سيرين مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه يالا نكو يالا ديف يت سي مبولم نجابوتام يالا يت ديف كو سي مبولم اي سوبيم يالا نيو يالا بولي سي نجابوت غي بولي ني سي سوبيي noonu ñu ñuy ñaan mawlaana subhanahu wa ta'ala suñu sëriñ suñu wayjur suñu xalifa ceerno Mouhamed El Bachir Muntaga Taaha bu mawlaana Cheikh Al Umar Al Fouti taala anhu mi nga xam ne mooy xalifaam yal ko yàlla yàggal ci suñu kanam te it mu ànd ak moom ak mboolem nawleem yi nga xam ne yàlla samp na leen ci këru diine yi yal na yàlla wërsëgal ñu ñu dégg seeni kàddu te it topp seeni ndigal yàlla may ñu it ci ñu it seeni barke ceerno nee na bu loolu wéyee mbooloo mi mu ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu jiital ci nuyu gi nag sëtu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñu ngi ci biir mbooloo mi nee na di ci jiital Cherif Mahmoud mii nga xam ne doomam la soppeem la xaritam la te it sëriñam la ci beneen wàll bi ndax ceer ceerno mii def na tarbiyu ci kanamu wayjur Cherif Mahmoud bii juróom-ñaari at nee na la tàmbalee 1970 ba 1977 nee na mu ngi sant yàlla mboolem lim fa sonnoon nee na mu ngi sant yàlla yàlla fay na ko coono googu nee na nag may yi di doxee noonu rek macha allah ba yàlla jotal ko ci loxo góor yàlla bi ñuy wax Ceerno Umar ngi juloon موي كيكون جك دفل إجازة تقديم في طريق شيخنا أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه يلا نك ديما ومات ديما ومات ديما اندي باتك ما تي لوخو تير محمد البشير مو نك ويجور مو نك سرين مو صوب ما يت تفال غو خامني لولو تي ادنا جي ييب مون نكو سيدي يالا غي ني بوله لا تامبالي 1983 جامانو جوجو كو نوب وون لا لودول كو يلا ورسغال دوغا وخم تيرو محمد البشير تيرنو نينا موم تير محمد البشير مو خيتل تيرنو بوبام تافكو سي نينا بوبو باتاي سانت نيل نا سونو بروم بي سبحانه وتعالى duma dem fenn ludul ci kaw du ma jëf lenn yit ludul ci kaw ndigalam te it ñaanuma yàlla tabaraka wa taala wax ludul ci kaw ndigalam neena na ndigal gi nga xamne mom la ma won ak jëf ji nga xamne mom la ma won ak wax ji nga xamne mom la ma wax جنول يالا نينا ينتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم نينا نينا بولا يالا بولي اكسرين بو خامني واخنا لا لي يالا واخ واخ لا يت لي ينتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم واخ مدفل ليت ليغا خامني موي اذن المطلق jamono bi la bi mu la koy defal pour mu defal nit isnu googu mooy ndigal googu nekkul lu yomb moom ci jëmmi boppam nëbboon na loolu ba mu bind benn téere mu daadi ci junju loolu ceerno ci jëmmi boppam ne ko maa la jox ndigal bindal ci téere bi ni maa la jox isnul mutlaq bi mu wax yeneen wax ca gannaawam loolu nag du lu ñuy wax ci mbooloo moo tax man damay ñaan yàlla des ci ndigal ci biir ndigal googu it ma ñaan yàlla yàlla def ma ab taalibe goo xam ne ab taalibeem gu mat lay doon ndax nekk taalibe yombut de yàlla nañu yàlla def ay taalibe amiin يالنا يالا دف ني اي طالبي امين كو يالا دف اب طالبي باغا خم لان موي دغ دغ اب طالبي ديغا فك ني نيك مو غنا نيه نيك لو ني يالنا يالا اي طالبي امين